boole nañ leen ci kër. yow sa diggante ko. waaw dafa yàgg nag. waaw bàyyi ba pare nga lool. yàgg ah, torop waaye sant yàlla ba euh, lu xew dañ ñuy woo nag kaa leen ngeen joué li ma wax rek ay polyvalent la ndax suñu la ñuy joué. léegi su ma ñëwee tey ci musique bi ni mu demee nii surtout côté fecc bi sax laay mais ni concurrence benn xam ne seen diggante ni ma amee ci waykat yi. concurrence bu fekkee gis nga ko. Mbaye dafa am fi jaaroo nekk ñooñu ñu dalal ñu ngi ñëw am lim toog ñoom ñu ñuy conseillé leneen def ba pare ñun seen talaay dañoo jóg yàlla dimbal ñu ci côté boobu amul benn concurrence. waaw lan lay dégg mag. moo ngi fi mi ngi fi jàmm mi ngi fi sëy. yéen a ngi dégg. waaw depuis kañ bi nga dégg. anniversaire ak ma nekkoon. waaw ah. amaguñ sëy amaguñ sëy bu benn. bu sëyul moo ëpp jot ci liggéey bu am benn te xam nga. diggante bi concurrence bu métti amul foofu. concurrence gisuma ko de ah gisuma ko de ñun jeune talent yi am na fi de. ñamal ñu ci dara. nañu bàyyi ba ñu yéeg ci kaw ñu sànni. yéeg rek benn bés bu ndaw rek. bàyyi ba ñu yéeg rek. dafa benn jaayu nii rek. tey lu ne am na fi loo bëgg a gis rek am na fi.